li nekkatul soxor de dañu bon li nekkatul naafiq dañu kon ñëpp lay Sonko di rey na ma yàlla baal 2024 dem ba pale jëlee fa Macky Sall teg teg rës gin président Sonko wuyoo <laughs> président Sonko sama gars yi loolu laay duggee ah di bëggee ñëpp Pape Dieye Ibrahima Ndaw Moustapha Mané dagul from Belgium Aboubacry Diallo from Russia his elder Ismaila Diallo di ko may Amadou Dame Diagne sama chéri ko ma maane ñeme salon chaque every week every Saturday day dem salon defar bopp bi yu naam seen may gars yi bëggee Malathion TV di ma koy waxee rek bi sama kanam bu ñaaw génn <laughs> sama gars yi tey si li may wax mooy je de hmm, merci ak kii maître El Hadj Diouf xam nga saa yi ma leen wax Cambay yaa Cambay Cambay kooku Mbay Cambay DG DG DG Lune directeur Lune xam nga directeur moo leen wax ne eh boy dem xam nga noonu lay waxee leen ci télé yi ngeen ngeen ngeen xorom quoi parce que gars bi am na fuite léegi dem leen foofu ngeen salteel wala El Hadj Diouf wala ñëw di salteel bi kii ñëw di salteel ay ay sëriñ Diouf Fall mais balaa damay wax ci benn gars yi ma interpellé kii bi El Hadj Hibbu nga xam ne day même seddaay day ñax moom ti yàlla nga koy mbugal te deewagul nag yaa ngi dégg moom day ñax na ko waa ji nee na ma dafa doon insister pour Sonko def test def test ADN saa waay ñun dañoo seetaan ay kii nu mu tudd sax kii Miami mooy enquête boobu noonu les les de Miami ñu ko seetaan ah les films de xam moom dañoo seetaan ay film série am nañ ci ay notion quoi ADN man dama xamul lu mu ci viol man dama xamul man mun naa concevoir sperme mais ADN tey su ma laalee fii nii sama ADN mi ngi fi tey jii kaasu ataaya yi boo ko jëlee da nga gis ay 1000 ADN parce que kaasu ataaya yi dañ koy bokk gis naa fi yëre yi tamit da nga dafa ADN dafa dafa dafa ñu bokkuñu ko nag mais dafa dafa dafa sensible léegi Sonko bu demee foofu di maasaw gel bi di ko maasa kay ah ah bu solee yére sax maasa ko benn moment laal ko nii sax jege ko nii comme complot la thèse du bu ko côté Sonko sa nekk prési ma jël li xaw ko laal sax ADN bu dafa am donc bi wasit yire bo mom dañ am ADN Sonko donc bu dé ADN mo japp Sonko ma xam ne Sonko niki japp parce que ADN moo gën yobam test de viol kay mom lañu wax da nga indi sperme sperme ngay indi te sperme ci jour le bu la waa violé kay bu ko rek def ah ñu xol ndax ñaale présence sperme mu fi sperme kay moy indi théorie viol mais pas ay ADN ADN c'est bidon tu vois donc loolu may wax ni dof la quoi bu koy am nga am ngeen sperme nak ngeen indi tu vois ngeen indi ñu xool tu vois parce que mu ne xam naa moom vous êtes prêt à tout quoi tu vois mais ñu moom ragaluñu saa la yaayu ndey fi laa gisee ku ñu jiñ viol laa gisee ku ñu jiñ jigéen ñi sax jéppi la parce que man dama gis ñaar Aïssatou Diop Fall dafay dafay exploité euh, kii bi yoonu tuyau tuyau féminin bi pour am dara jigéen ñi dofuñu de y a des intellectuels am na jigéen ñoom dañu koo jéppi tey jii jigéen bu doxee si mbedd mi gis moroomu jigéenam sol yenn sol yu ñaaw yi day jéppi jigéen boobu noonu la jigéen di gis moroomu jigéenam gis ko muy def dara ngir xaalis pour yàq benn réputation politicien nga xam ne kii si jigéen lañ ko jaaree da ngay nekk jigéen comme ni nga euh, Khadija Maye Koor ah. waxee jigéen ñi ñu si ay jigéen sensibilité amul sensibilité tu vois acte bi ngay xool jëfinu mala la jëf di accuser bëgg yàq liggéeyu ay milliers de personnes espoir de tout donc loolu c'est gauche quoi donc bu leen jaaree si ay jigéen quoi léegi bu jëm si El Hadj Diouf wala si kenn si Aïssa Diop Fall baa ma nekk si El Hadj Diouf Diouf El Hadj Diouf yow est-ce que Bougazeli Bougazeli dina dina dina gis kuy kuy def faux billet mu koy xas yow waroo xas kenn yow sa viol ba ma nga France sa kaaw viol bi kañ nga gëj France yow bu ñu doon fay avocat cent mille euros avocat cent mille euros France doo dem parce que boo fa demee mooy la xam nga la fay fekk fi ngay nekk di soof nii rek bu ñu waxee viol ci plateau sax nga daw donc yow da nga bëgg golo bu lakk stade day bëgg a morom Sonko Sonko Sonko du sa nawle yow élection présidentielle xam nga loo ci am dem école 9 wala école 16 dem voté génnaat mais yow kenn du la def ci effigie kenn du la def ci bulletin loolu moom xaa àllaaxira ñu dee dem àjjana nga ne yàlla yàlla na luy sa premier souhait nga ne ko def ma ci bulletin de vote ñu may voté jinne yi dama voté wala uru ay mais fii mënoo ko am tu deuxièmement avocat des causes perdues yow avocat nga moom boo xam tey ko jox ay dossier dossiers yu salté yi la tey ji ay affaire dof waxi dof comme Assane Diouf bu saaga ba sol la ñëw nga ne yow jox la El Hadj Diouf loolu la bëgg affaire dof yooyu maanaam yow dossier nawetaan ngay ñëw ko El Hadj El xamoo dara nag billaay xamoo dara يلا سمو دانا tu دو انا يخل المتر كلي دور لي non ay avocat Karim Wade taxaw ni oh oh là là c'est des yo yow yow moom quand il s'agit de faire du sale boulot rek si lañ lay jël quoi vraiment ayoo dara xamoo dara dara dara dara un voleur ne crie pas au voleur tu vois yo ram loo war a ba pare nan maay seetal kii viol yo yaa war a xam ni viol yo tees viol yo moom nag tu es bien placé nag wax viol ak yooyu noonu yow moom yow moom nga jox moom yow parce que da nga ko dund hélas da nga ko dund sonko mënu ci sari viol mën nga xam ni jigéen ni ngay boo boo tàggoo sa sago si jigéen ni ngay songee ni ngay <laughs> yàlla jiw fa neex non je te jure c'est du n'importe quoi c'est vrai bàyyi la def waaye hmm, du sab kii yéen a démarré ndoo plus fort reste mu dem ba nekk troisième présidentielle ah yéen a demandoo Italie yow amoo këyit moom am na këyit benn li ñëw yow soo génnee dëkk ba boo ñëwee dootoo duggaat mais nangul ndogal yàlla lay maye ah, dafa mel ne ñaari gaa yoom biitu mbagg rek kenn ya, ki dem bay am ay nga ñoo nekkon doon ci marché bi di jaay buy yéen doon jaay ndóob buy mais mom c'est forger un destin ba mëna tabax ay magasin mais félicité ko da nga ñaan yalla sax mu financé nga jëm juk ah mu ngi ngay def ni amul benn jël amul benn jël ma demaat ay sa Diop Fall ci sa Diop Fall am vraiment Aïssatou Diop Fall Aïssatou Diop Fall lu bokk ak Diop Fall sax mooy Diop Fall lu ñu xaw a nuroo Fall rek la ñu bokk même seen mbagay nga xawu a nuroo nag yaatu yooyu ñoom man ay kii ko ko quoi voilà boo dëpp xaw a nuroo de Aïssatou Diop Fall mais Aïssatou Diop mën dara Aïssatou Diop man man man man j'en suis certain que Aïssatou Diop dafa dafa dafa dafa nopp Sonko wallaahi dafa bare c'est que mën na gëloon ne xam nga jigéen dafa nit su nii mën ko jot loolu na Sonko moo jot day gis Sonko nii rek bëggoon na xool waa ji nii bëgg na ko Sonko xoolu la booy mu gën a moom deuxièmement mooy yow lafañ borom sareet lay faral ngeen baal ma handicapé bëgguma di wax yow no mel mais olof moo ko wax lafañ borom sareet lay faral yow ji mënoo mënoo bu gaston demee fële euh, comment dire bu gaston demee fële yalwaan moom moo ko ko de bu demee fële palais jëlee fa dara ñëw jox la sa lekk ngay kii donc yow fu fu fu fu waa affaire tissé li nga yaram ko la donc quoi donc la quoi parce que fan

moom moom la ñuy liggéey tu vois donc ngeen bàyyi seen yooyu ngeen def quoi Aïssatou Diop Fall ak ak kii ak ak euh, Maître El Hadji Diouf vraiment sénégalais yi jëppi nañ leen jëppi nañ leen trop walaay dinañ jëppi xam nga di nga gis tey jii benn Pape Pape Djibril Fall day génn gars yi naan kon bi nga Pape Djibril tu as été pertinent non booy dama lay bëggee mais yéen kenn du leen faal da ngeen doom ñaan xoolal dof yi hypocrite yi loolu bon quoi gars yi leen jéppi Sénégal yi ñu doon def ay sondage les personnes les plus détestées wala les plus xamul ñu ko mën a sax les plus xamul lan mooy yéen quoi da ngeen da ngeen kenn bëggatu leen da ngeen dem ba gars yi di leen jéppi quoi te loolu baaxul loolu baaxul nit da ngay da ngay diñ nit da ngay diñ di soo ëllëg tu vois xool sa peuple lu muy dund nga jàpp ci mais xaalis bi mu tax ngay wax loxoom jox ma ne li ngeen ni ko di jéem a defa dox si maanaam Sénégal day baaxul quoi da ngay gor quoi Fou Malade gis nga Fou Malade parfois gars yi nee na gars yi mu taxay dafa wax waxi axlaay dëgg nit noonu lay mel da ngay nekk fii di bu yaakaar ma dem fay recevoir la mais la 4 millions wala dara pendant ce temps bu peuple ñi dee Ah, amay machine problème mu machine dialyse amay problème mu eau potable amay problème mu transport ah, booy jàng amuñu liggéey mais égoïste que vous êtes pour yéen seen bopp rek nekk genre bi ngeen xalamal koo ñu kenn ko def dañu woote ku bëgg na ñëw mais nag na na am fair play quoi tu vois ñu dans dans les règles ñu bañ a nekk di sos di fen di def affaire quoi lu baaxul. baaxul quoi ay pour koo xamul politique daa salte du ma politique ma politique yi weer ma ah politique c' est l' la cité comme ni ko Sonko defee l' art de gérer la cité fekkee cité indi la ay solution la cité mais pas nga ñëw di sos di fenn di bëri indi ay viol yoo xam ni vraiment ah ça sort de l'eau de là quoi sama gars yi doo leen ko sama kanam bu ñaaw lañ kenn mala tion di leen bëggee waaw mooy loolu bëggee naa Sonko for life ñun Sonko rek waaw parce